Thank you Amal Cooperation Suarel Des spécialistes en vente de terrain location immobilière travaux publics nek ci diwanu Sénégal waaye ay bànqaasam wër aduna. moo xam yaa Gambie Mauritanie Mali ak bép dëkk bu nek ci sous-région ak fo munti nek ci 14 régions terrain ak foo ko bëgg ñu jaay lako ko tabaxal la ko ko mu and ak ay kayitam ba mu yem Kayitu lèr nak la wax So bëggee ñu défal la ce plan béton armé béton armé 3D 2D terrassement ci boo bëggé. yow dal da ngay tëdd sa kër wax ñu fa nga bëgg sa terrain ñu tabaxal la ko jox la sa ay caabi defal la étude de sol defaral la sa projet gunge la ba nga am financement ndax Jamal corporation Suarel dafa ànd ak équipe bu complète ay plombier menuisier bois menuisier aluminium ay maçon ay peintre ginnaaw bëgg a confier sa liggéey keneen te amoo ci lu la neex so jokkoo ak ñun ñu modifier la ko ba mu mel na la gënal defal la béton armé ñi tabax ay jaka juma école wala dara yenn mairie yi ak collectivité locale yi ñi ngi leen di talal suñu ay loxo ci marché projet ak programme bu ngeen munti am di la jox sa ay caabi ci délai bi ñu wax waxante ak yow ñoo ngi fii ci diwaanu château d'honneur ci ginnaaw tribunal bi nga mën ñoo woo ci 77 034 26 90 76 300 0084 wala ci 77 289 45 45 wala yow mi am sa suuf te mu nekk ci bërëb bu commercial te amoo moyen yoo ko tabaxee daan ci waxtaan tabaxal la ko ba nga mën caa dëkk ginnaaw bañ ko waxtaanee ba signé ko ci ay contrat ñu yore seeni kër wóolu leen ci di leen ko dénk ci wàllu location yow mi nekk bitim réew li nga doon xalaat du ay gént mën naa nekk ci boo jokkoo ak waaye groupe Jamal Corporation Suarel yow mi bëgg ay tool ngir mën na bay ak foo ko bëgg ci Sénégal dañu la koy liggéentil ànd ak équipe bu complète ci ay technicien batiment ay ingénieur di taxawul liggéey bi ni muy doore ba nañ lay joxe sa caabi solution ci tabax ak batiment ci Sénégal ak sous région bi mooy groupe Jamal Corporation Suarel أعوذ بالله السميع العليم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه مبكي نوي دل سوات كيان تسنو نتعلوم جتاي تي يك يك غوب نينو وقتاني واي بن كي مرتلي موي دل لون جوكل سين مبكو ساز محمد صالح جوف نكال لنتي وخو كايبي Mor Dramé nekk leen ci xarale bi ci seen sit site Aynu Maadi TV ñaan yàlla yàlla sunu boroom nangul ñu mbooleem jaamu yi nga xamante ne ñu ngi koy jaamu ci weer wii di safar di weer wu rëy ci fii ci réew mi di Sénégal walillahi alhamdu kon gannaaw yëg-yëg li ñuy wax mooy delloo njukkal delloo njukkal nag baatu wolof la bu gàtt waaye nekk lu am solo reconnaissance def naa lañ koy tuddee ci français ndax doomu aadama yonent bi sala dafa wax ne képp ku la defal lu baax nanga ko delloo lu baax loola mu ne bu fekkee mënuloo ko delloo lu baax kéem li mu la defal nanga nga ko wax ne diw defal na ma lu baax kooku danga koy mën a tënku ci aaya alquran bi wax ne fa amma bi nicmati rabbika fa xaddis say xéewalu borom yow yonente bi na koy waxtaane gaa boroom xam-xam yi ut nañ ci exception ne sa lu baax bul ko waxtaaneek say noon ndax danañ la catu wala ñu añaanee la jëf-jëf te bés bu ñu jëfee ay jëf yàlla bu ca àndee rek mën na la indil ay gàllankoor moo tax say yu baax na koy nettali ñi nga jàpp ne ñooñu say soppe lañ ba tax na delloo njukkal boobu mu almukafaa nit defal la lu baax nga delloowaat ko ko kooku cosaanu lislaam la yonent bi salaa dafa nekk ay guddi guddi muy tuur ay rongañ di jooy jooy yi méttee métti be Aïcha yërëm ko waaye bilal bi nga xamantene sax moko nan hayya ala salah julli jotna bismillah dafa dem be yeeram ko ndax joy yu metti be ben benn bés Bilaal ne ko waw yonente bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam yow yàlla wax nak yow ci alquran ne la inna fatahna laka fathan mubinan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط مستقيما يلا نينا مالو أبيل أبيل بوها مانتيني فيك أي سيكل سيكل بأدن توكي دنين خمنا من يلا أبينا له كي فتح مكة أك نيني نيني توبي دوكي الإسلام يمو ماتا نير من يلا ممن لا جيغل سي باكاري جيتو waaye jéggal la say bakkar yu mujj waaye it jubal la ci yoonu siraatal mustaqim dootoo ko wàccati mukk jox la ndimbal goo xamante ne ndimbal gu mat la xanaa nekkul yàlla moo la wax ak lii moo la waxal lii yow yonente bi kon jooyu métti yi lu ko waral yonente bi lan la ko ci tegal mooy afala akuna abdan shakuran ndax du ma nekk jaam buy delloo njukkal kon nga gis ne as muy sant borom bi loolu mooy delloo njukkal ñu koy defee ci ñetti anam nag làmmiñ da koy def jëf da koy def waaye melokaan daf koy def nit dina sante yàlla ci làmmiñam yàlla ne ko eskay baax na nit sante yàlla ci melokaanam yàlla ne ko eskay baax na nit dana sante yàlla ci jëf jëfu sant yàlla ne ko eskay baax na waaye it ki war a jëf jëfuk sant bu yemee ci làmmiñ yàlla daf ko naan déedéet doyul ki war a jëf jëfuk sant bu fekkee dafa yem ci melokaan yére bi muy sol ak oto bu rafet bi yàlla daf ko naan doyul faw nga jëf kon dafa am sant yoo xamante ne làmmeñ rek doy na ca am cant yoo xamante ne melokaan bi doy na ca waaye am cant yoo xam ne dañ koy jëf yàlla wax ko ala daawud i'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiya shakur yéen ala daawud yéen na ngeen jëf seen sant na ngeen ko jëf ndax dama leen defal lu rëy ndax yonente ku ko mën a booleeg nubuwa ku ko mën a booleeg mulk yàlla tàggatal la nit ñi rawatina Suleymaan yàlla tàggatal ko picc yi njanaaw yeeg lépp kon kooku na jëf euh, euh, njukkalam na ko jëf waaye bu mu ko yemale ci wax loolu tax na ñu dellu siwaat ne yàlla ki mu may wér boppam mettiwu ko biiram mettiwu ko jox ko nopp buy dégg làmmiñ buy wax bakkan buy noyyi muy sànni loxoom di jàpp di ngëpp di tëye tànkam di dox kook bu delloowut yàlla njukkal ci li ko yàlla sant yàlla nee na dellooguloo ma njukkal te tey ci jamono li xew mooy yàlla daf lay defal nga bañ a delloo yàlla njukkal di delloo njukkal keneen koo xam ne defalu la wala bokk la mu la defal boo ko comparé ak li la yàlla defal dafa mel ni rek lu tuuti looy jële ci bën bënu puso ci ndoxum géej ak géej gi kooku di ma joxee misaal tey ki tëdd guddi gi fukki waxtu ñett bu fekkee guddi gi gudd na wala fukki waxtu bu fekkee guddi gi gàtt na dara mettiwu ko amul njàkkare amul tiis lépp ma ngi dox lépp a ngi fonctionné mu tëdd ba fajar fekk ko fa yemu ca mu bàyyi ba naaj ba fekk ko ci kaw lal kooku bu yëgeeg bu yëgut yàlla mu ko naan delloo wuloo mu njukkal de ndax diggante fukki waxtu ñett yii ma la may nga am jàmm ba nelaw di xandoor dara méttiwu la xañ naa ko sax waay de am na ko nekk hôpital ma ngay onk boo ko laajoon li mu gën a bëgg ci àdduna du la wax milliard lenn rek la lay wax mooy wér wér gi ma la may nii am na koo xamante ne nekkul hôpital de waaye amul jàmm ma nga ci kaso ya boo ko laajoon la mu gën a bëgg mooy man jàmm naa amaat liberté te pourtant jox naa liberté ba ngay nelaw de am na koo xamante sax rey naa ko dugal ko biir suuf boo ko laajoon li mu gën a bëgg mooy naa delluwaat ci kaw suuf jaamu yalla benn jaamu yalla sax ñu dugaat ma ci kaw suuf yow yaa ngi dund waaye ci biir lii yëpp am na ko ñàkk noppam déggut mu ngeek xobi noppam waaye déggut man yàlla may naa la ngay dégg am na ku ñàkki bëtam mënta xool yaa ngi xool am na ko am làmmiñ mënta wax yow yaa ngi wax lii yëpp ma defal la ko waaye nga mën a tëdd guddi ba guddi jeex ba jant fekk la fa nga def ko benn fan ñaari fan ñetti fan at lëmm ah yàlla nee delo delloowuloo ma njukkal kon lolu ay misal la yo xamantene jambi jaam war na ci baye xel mu yekne yàlla sunu borom jalla jalaluhu azza kamaluhu moy kiko defal lépp te li ko defal lépp amna na ñu mu ko xañ moom yàlla mi mu ko defal yàlla mi ko ko defal jëfalul yàlla ci kaw suuf lutax tax yàlla ne xaaral ma jox ko wéram jox ko léppam muy dox waaye it ki ko yàlla xañ deful yàlla lu tax yàlla xañ ko ko ba tax na doomu aadama delloo njukkal kese moo ko war ci digganteem ak boroomam ba yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne ñi nga xamante ne ñooy dugg aljanna mooy ñi delloo woon yàlla njukkal waaye képp ko xamante ne amutoon yëg-yëgu digganteem ak boromam ngir mën ko delloo njukkal amutoon yëg-yëgu digganteem ak boromam ngir mën koo jëfal lu baax topp ndigal bàyyi tere nee na kooku nag ëllëg yàlla dina ko fay jëfam mooy ñàkk yëg-yëg boobu mu ñàkk yëg boromam ak fi ko yàlla jaarale yàlla it nee na ko àllaaxira boo ñëwee dama la dul xool sax bés la boo xamante ne man yàlla duma la xool duma la faale dama lay bàyyi malaayika ñu lay pamtam ndax yëguloo ma woon man yàlla tey duma la yëg kon suñu ñetteelu pàcc foofu lañ koy yemale walillahi alhamdu ñu ngi sant suñu borom di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may dégg ak topp salaatu wa salaam ala habibina wa shafiina muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh Diop Diamal Corporation Suarel des spécialistes en vente de terrain location immobilière travaux publics nekk ci diwaanu Sénégal waaye ay bànqaasam wër Aduna, moo xam yaa Gambie Mauritanie Mali ak bépp dëkk bu nekk ci sous-région Et ak foo munti nekk ci quatorze régions terrain ak foo ko bëgg ñu jaay la ko tabaxal la ko lijjanti ko mu ànd ak ay këyitam ba mu yem këyitu leer nag laa wax soo ñu plan béton armé béton armé 3D 2D terrassement ci boo ko bëggee yow de da ngay tëdd sa kër wax ñu fa nga sa terrain ñu tabaxal ko jox la sa ay tiabi defal la étude de sol defal la sa projet gunge ba nga am financement ndax jamal corporation Suarel dafa and ak équipe bu complète ay plombier menuisier bois menuisier aluminium ay maçon ay peintre ginnaaw ba nga confier sa liggéey keneen te amoo ci lu la neex so jokkoo ak ñun ñu modifier le ko ba mu mel na la gënal defal la béton armé ñi tabax ay jaka juma école wala dara yeen mairie ak collectivité locale yi ñi ngi leen di talal suñu ay loxo ci marché projet ak programme bu ngeen munti am di jox sa ay tiabi ci délai bi ñu waxante ak yow ñoo ngi fii ci diwaanu Mbour château d'honneur ci ginnaaw tribunal bi nga mën ñoo woo ci 77 034 26 90 76 300 00 84 wala ci 77 289 45 45 wala yow mi am sa suuf te mu nekk ci bërëb bu commercial te amoo moyen yoo ko tabaxee daan ci waxtaan tabaxal la ko ba nga mën caa dëkk ginnaaw bañ ko waxtaanee ba signé ko ci ay contrat ñu yore seeni kër wóolu leen ci di leen ko dénk ci wàllu location yow mi nekk bitim réew li nga doon xalaat du ay gént mën naa nekk ci boo jokkoo ak waa groupe Jamal coopération suarel yow mi bëgg ay tool ngir mën na bay ak foo ko bëgg ci Sénégal dañ la koy lijjantil ànd équipe complète qui est techniciens bâtiment et ingénieurs qui taxawu liggéey bi ni mi dooree ba nañ lay joxe sa caabi solution qui tabakh ak bâtiment qui Sénégal ak sous-région bi moy groupe Jamal Corporation Suarel.